asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullah jeudi 5 mars 2020 ñu ñëw ak yéen ci yëglekaay yi moo xam sunu làmb moo xam yëglekaay bii di record la wala Leewtoo TV fu nekk ay xibaar tey xëy na fa bu dee yëglekaay bii di sunu làmb la moom Balla Gaye 2 la ñëw tey wan ñu ko ci aw foto woo xam ni ni daal mu nga solo bëdeem wala bokk ab booy dooleem di jaay doole wala silet maam daal loo ci mën a dégg moom moom la ñu xëy fesal tey photo bu yanjay yanjay yanj Balla nag yëglekaay bi daa mel ni daal dana est-ce que Balla mii narta demaat ci ñetteelu année balance boo xam ne nii da koy dal ginnaaw 2015 2016 wala 2016 2017 mu mel ni foofu foofa moom am na fa ñaari année balance mu mel ni kon est que bu ci dollee bii du dekk ñett maanaam daal yëglikaay bi loolu la xëy tey samp tax na nag mu ne boo xoolee combat bu mujj mu ngi ko bëre woon ca janvier 2019 ci la mujj a te diggante ma Boy Niang daa mel mbir ma moom Boy Niang nga ko gën di bu dee la mu bëgg nag mooy Tapha wala ki nga xam ne moo di Bombardier wala Gris Bordeaux daa mel foofa tamit lenn lu leer daal amagu fa pour mu bëre ak ñooñu yëglikaay bee xëy ñëw tey samp boobu laaj jëmale ko ci ki nga xam ne nii moom moo di Balla gay numéro 2 bu ñu ca jógee nuy continuer dem fi nga xam ne nii ba tey ñu des ci yëglikaay bi ka nga xam ne nag moo di am dem ak Valdo seen combat ba nga xam ne day le huit bi la naroon a am fa nga xam ne mooy ca Linguère daa ni nag coronavirus ba moom li olof naan ñax ñax gu wow day lakk lakkaale gu tooy moo ca am daa mel ni combat ba moom mujj nañ ko aj la ko waral nag mooy coronavirus ba ba nga xam ne moom kenn aju ko mu war a am le 8 mars mooy diggante Fra. ak ka nga xam ne moo di bébé Saloum booba combat moom day am moo tax yëglikaay bi xëy sam pour laaj ne Franc mu ngi ci juróom-ñetti combat juróom-ñetti ndam ndax Franc day continuer ci yoon woowu mu nekkoon daan di falaxe di dem comme ko war a séqal nag di bébé Saloum moo tax yëglikaay bi xëy tey samp boobu laaj waaye bu nu continuer ci combat boobu dañ cay des wala adversaire ka nga xam ne nii moo di faraa ba di Bébé Saloum yëglikaay bi di record moom nee na Franc ki nga xam ne moo di Bébé day ginnaaw ñetti at bi mu fi dajee mbër bu nga xam ne mbërum simple la mu daan ko muy rëg-rëg est-ce que bi yoon ndax nag mu wala bokk mu ngi def yewaat keneen koo xam ne day ci lamb simple ji la ne muy ki nga xam ne nii moo di Franc yëglikaay bi moo xëy tey sam boobu laaj moom record waaye dañ fay continuer wala boog ñu jóge fa dellu fa nga xam ne nii moo di ca sunu làmb yëglikaay bi nag daa xëy ñëw tey def benn enquête daal ci raison yi nga xam ne nii moo tax ab front juddu di contre li nga xam ne nii mooy grève arbitre ya yëglikaay bi di sunu làmb xëy tey ñëw dugg ci ab ya lu yaatoo yaatoo yaatu daal maanaam gëstu mbir ya ak la ca xew ak la ko waral yëglikaay bee xëy tey ñëw di nu wax lu mel ni kii noonu waaye dañuy def fi nga xam ne moo di sunu làmb mu mel ni kii nag diggante soq ak ki nga xam ne nii day moo di gàmmu géey moom mu mel ni kii nag combat ba moom promoteur ba di Baba Diaw moom mu ngi koy préparé fas na yéene daal wane ca lu doy doy waar buñ ca yeggee moo tax sax dañuy continuer dem ca Leewtoo TV ka nga xam ne nii day moo di soq mu nga fa ginnaaw ba gàmmu géey waxee daal xamal ko la mu nar soqit ne na ko li leer ba leer day jàppal lii ma lay wax pikin moom maay relève ba te yow gàmmu géey amul lenn loo xam ne nii danaa ko moytu ci yow loolu moom na la leer nañ soq a xëy wax lu mel ni ki noonu fa nga xam ne nii moo di ca Leewtoo TV waaye bu nu continuer dellu record record nag moom ka mu xëy dalal muy góor a soq góor a nag moom fi mu nekk nii ay mbiram dafa doxatul moo tax nag day moom jàpp na ne day dina dellusiwaat bu baax a baax a baax nag mu ngi ci ab liggéey te ñi ko yor ku mel ni lay njombor ay techniciens yu wóor lañu moo tax jàpp na ne moom day bokkaat nee na tamit li leer ba leer ñu ngi koy proposé ay combat ñu ne ko góor a kan kan la mu ne ki nga xam ne moo di doomu dàngu Jordan assurance ak ki nga xam ne moo di força bu faas ñu ngi ko koy wax waaye daa jàpp ne day lenn lu leer amagu ca waaye moom fi mu nekk nii nee na ñeent ñooñu xàmmewu ci jànj ak joor ku ci ñëw rek da jël bëre ak yow moom góor a soog loolu la xëy tey wax ku ci yëglikaay bi nga xam ne moo di record ñu ne ko sa digg ak Papa Sow mu ne Papa Sow day mu may jox wala boog mu may jox ay conseils yoo xam ne nii day ñetteel ma commencé ànd ak moom ba tey ne na leen mësumaa ku ma conseil façon conseil yooyu ci làmb wala nga may teg ci yoon wu mel noonu ne na moo tax Papa Sow moom muy taw muy wala muy naaj ak lu ma mën a def ak lëndëm ak lu mën ta xew ànd ak moom di continuer même bu bàyyee làmb sax ndax nag jàpp na ne day kii di Papa Sow moom amal na ko njariñ loo xam ne nii daal li leer ba leer moom ah jafe na mu am ko te tam daa jàpp ni moom Gora Sock masta am njariñ lu mel noonu ci ku yëngutu ci mbirum làmb loolu mu ngi ko waxee fa nga xam ne ni moo di record waaye fa nga xam ne nii ba tey moo di record keneen koo xam ne ni moom Edouard Sarr lañ koy wax di doomi ki nga xam ne moo di Ambroise Sarr moom nag daa mel ni kere de table technique ba nekkoon arrêt Senghor ba gannaaw ba arbitre ya moom la ñu jël mu yeggale mbir ya mu ni table technique ba moom moo ko yoroon moom nag la mu xam ne daal nee na li mu ci jubloon lenn dong la li mu ci jubloon mooy naam mooy sauver li nga xam ne nii moo di promoteur yi nga xam ne kera tegoon nañu seenub xaalis ginnaaw gerew ba nga xam ne nii arbitre dañu koo gerew waaye li leer ba leer daal kon jàpp leen ka nga xam ne nii nag moo di rëg-rëg moom ñëw na ndakaaru depuis démb noonu lañ leen ko waxee woon dim mu mel ni ki daal kii nga xam ne moo di Omar Kane moom yegg si na ci réew mi ñeneen ñoo xam ne moom dañuy xaar muy fils de Zal Lo combat ak caatu ngéwél daa mel ni recours ba nag fan yii day faras na ci xibaar ne boo sàgganee dana génn jet li moom recours am mu ngi koy xaar bu baax a baax a baax baax caatu fora itam dugal na recours mu mel ni ki kon daal temps yi moom recours ya saf na sàpp fa nga xam ne nii moo di ca CNG ba Doudou Sané moom ku ko bëggoon tëgg muy xaddaafi booy boo nga xaar tuuti ndax daa mel ni ña ko yor daal daa mel ni dañoo bëgg ñu xaar ba sa sama bay waaj a tëj ñu door ko bëri lowaat yàgg maar waaye yàgg la ma waxoon démb laay waxaat rek coronavirus bi ci àddina bii te dugg ci réew mi yàlla na ko yàlla mi mën a saafara saafara waaye yàgg ku wax li wax la ca des ndax nag kullu nafsin saayiqatin mawtin yàllaa ko wax te Cheikh Abdourahmane Fall tilaa la génn àddina démb mook soxnaam aku bëkk néegam mu mel ni kon yàlla dong moo yor gi yàlla na ko yàlla jéggal xaare ko aljana boole ko ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak itam ka nga xam ne moom la ma sono doyloo muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul mu mel ne àddina yàggul maar moo tax looy def rek rafet ga da cey gën mbokk waa Leewtoo TV ñu leen nuyu di leen gërëm leen sant Babacar ngeen àndoon si revue de l'arène bi ñu si jàngatu arène bi Babacar maa ngi lay nuyu di naa la ba jàmm nga fanaanoo waaw man de maa ngi sant yàlla jàmm ne laa fanaanoo ndax wax dëgg yàlla démb ba ma wàccee moom tëdd xam nga julli pare dem defi sama entraînement vraiment ñëw nelaw macha allah quoi. non te nag chaque jour te nag kay amul guddeeg bëccëg te nag moom waa sama diggante moom ci ay oote amul heure tu dañuy wootante. waaw ak yaay rek na mun na la benn fan nga fa jógee donc nag mën na la daal dégg nga. ok ni ñëw nag si sunlaam sunlaam nag xëy na ñetti fan a ngi nii moom li ngi ñuy may rek si si Balla Gaye nee ñu nag Balla Gaye ginnaaw bu mu defee est-ce que tamit ren def ñetteelu saison blanche am ginnaaw bu mu ko defee 2015 2016 2016 2017 ak ren bi nii nee ñu est-ce que tamit du dem si ñetteelu saison blanche nee na dernier combat am depuis 2019 la nee na moom ak combat ak Boy Niang moom li ngi mel ni daal dafay dafay waaye naax saay li nga xam ne moom nee na pare na pour ki nga xam ne mooy Bombardier Tapha Tine Gris Bordeaux Babacar waaw loolu daal li si am solo mooy ren moom boo sàgganee xalaat naa waxuma sax Balla Gaye mi mbër yu bëri boo sàgganee dañ def année blanche parce que nag février dee na dèjà ñu ngi mars tey la la 5 te dégg goo tey muy Balla Gaye Eumeu Sène ah, Tapha Tine Gris Bordeaux la Lac de Guiers ba Bombardier kenn ku ñu la si ne combat am taxaw na kon loolu nag la muy xeeñ mooy ah olof na na cin bu na neex su baxee xeeñ te cin lii daa mel li muy xeeñ actuellement pour saison ren bi moom neexagul kon defe naa ne Balla moom euh, ci ci biir carrière am li mu ci def année balance bëriwul boo xoolee ñaari ñaari yoon la comme nun ñu ko waxee ah ren nag su amee mooy nekk ñett loolu nag gënalul waa làmba parce que nekk na mbër bi nga xam ne nii tey yaakaar naa ne su amee combat làmb ji dañ yëg ne Balla Gaye de am na combat ci communication ci nangam ak sàngam ak ak yu mel ni kii noonu parce que noonu la ko yàlla buur bi bindee mu na nekk ki nga xam ne daal tey bëgguñu bëgguñu kenn def année balance mais moom bëgguñu def année balance mais nag ah fi mu nekk lee xeeñ daa mel ni neexul de li ma siin muy li ma dégg muy riir di direku di ñëw ah bu dee dee astaghfirullah corona lan ane balance man sama yoon newut ci coronavirus ñi mu dal yal nañu wér awit Babacar journal tamit suñu laam ni nga xamal ni ki nga xam ne mooy Franc mi ngi si huit euh, combat huit victoire moom daal déggagul muñal nee ñu nag est-ce que day continuer euh, si si victoire boobu saa ci si combat am yooyu nga xam ni du du di continuer si ay victoire am wala ki nga xam ne mooy Bébé Saloum da koy freiné waaw loolu de lu ci mën a xew xam naa ne yàggatul la ñu yónni yàgg nag li ci des bareetul incha allah rabi ñaan yàlla fekke ko te tal ko rek parce que dimanche la ñuy fa nga xam ne mooy ca arène nationale waaw li am solo nag mooy Franc moom wax dëgg yàlla li affaire frappe mbër daana ci waaw boo xoolee mu ngi ci vite combat vite victoire comme noonu ñu ko waxee ndax bébé da ko stoppé wala du ko stoppé nag la ma la waxoon laa lay waxaat rek ñoom ñaar ku ci nekk tey ci li nga nekk am na loo ci wane ba nit ñi am fuñ la teg yaa ngi dégg kon daaxaar naa daal li ñuy ñaan mooy rek ñu yegg ci dimanche incha allah rabbi fekk ko te tal ko di ñaanal promoteur bi nga xam moo teg combat boobu muy jamaykee ak groupe bi mu àndal di liggéey xam ne nii mooy le 8 mars tombeek tamit bés bi nga xam ne ci la ñuy sargal soxna yi te man may wax ne soxna yi amuñu bés pour man bés yëpp ñoo ko moom loolu moom su ko xeet naa la ko Babacar ndax yow yow jigéen ñi moom ay lan ngeen ay gaañ ngeen <laughs> Babacar li ngay bañ a dégg nag mi ngi si làmb ji muy coronavirus nee ñu nag ki nga xam ne Aliou Ndiaye meeru Linguère combat bi a am si dëkk muy euh, diggante Ahmed Deme ak Valdo moom daal nee na combat mu fa am nañ ko reporté ndax nee na coronavirus bi moom moo tax Babacar muy nag loolu xaw a doy waar ndax bi investir na euh, mbër yi pare nañu te doo xam instant bi nii xamagoon kan la ñuy bëree Babacar. waaw loolu de lu doy doy waar la waaw la ma la wax sànq rek ñax googu moom des fois day lakk saa yu ko gu tooy mu soriwul nag mën na koo lakkaale mooy lii am nii ah li am solo nag mooy moom mooy ministre de l'intérieur et puis dëkkam na làmb ji waroon bu taxawee itam ne tey nañ ko annulé parce que feebaraat feebar yi wóorul te day wàlle ah xel mën na koo nangu yaa ngi dégg loolu duñ ko bañ waaye lam solo tamit feebar bi lu ma si wax rek laay waxaat nañu ànd ak yàlla benn yaa ngi dégg gëm yàlla te wunu ko delloo ko suñu bopp parce que am na lu nga xam ne nii suñ ko jëlee tamit jëlee ko benn jëlim dina dem ba benn ma dinañu traumatiser yàqa ñu lépp lu ñu waroon a def yaa ngi dégg te feebar amul benn feebar bu baax ci nit soj bopp buy mitteeg sibiroog baaram buy mitteeg wewu dam ak lépp ay yem lu ci nekk rek maladie la yaa ngi dégg dafa fekk ne nag man comme la ma doon wax rek man ñun ay sénégalais lañ ay africain mais ay doomu aadama la ñu feebar jombul kenn amul ku weex amul ku ñuul waaye itam nag li am fii ci réew mi man Babacar ma ko doyloo wóolu ko salaatul faate yi am fii ak jàngo ba la ñuy def ak ñeneen ak ñeneen man loolu man gëm naa man Babacar ne loolu man doy na ma te gëm na ne si kàttanu yàlla moom yàlla dinañu ci muccal man loolu laa gëm keneen nag am nga droit gëm leneen di ñaan daal ñamu dal yàlla nañu wér ak jàmm loolu rek laay wax man Ndeye Coumba Fall Amin Babacar Babacar na journal bi ñëwaat aussi si grève arbitre bi moom na ñoom arbitre yi week-end bi ki nga xam ne moom Maysa Ndiaye mi président CRG Thiès nee na moom il s'est senti trahi nee na arbitre yi ko bett lool nee nañ nag la moo tax arbitre def lool moom ba léegi mënul xam comprendre la moo tax arbitre yi naan ñoom nañuy grève parce que toutes les conditions sont réunies pour a euh, def seen liggéey bu baax Babacar Maysa Ndiaye du moo nekk CRG bu Thiès est-ce que toutes les conditions sont réunies Maysa journal moo ko bind. ah moom moo ko bind wala Maysa ko wax. journal moo ko bind Baba <laughs> Maysa moo wax. ah benn lay pàq la de eh, parce que arbitre yi comme la ma waxoon dem lay waxaat de c'est des responsables de. yaa ngi dégg lu ma lay wax li tax ñu grève dama ne nit ki boo ko yilifee yor ko ngeen seq liggéey ngay kilifam ci liggéey te yàlla moo dogal loolu ndax àddina amu fi kenn kuñ dul yilif xanaa kay nga am kilifa bañ ko mais ñëpp am kilifa yow nag ki nga yilif la nga war a def mooy da ngay wàcc. ba tolloog moom di xam li ne ci moom mais nit ki mënoo kuy lif nekk dixième étage moom mu ne ci suuf doo ko lijjanti doo ko régler si yaa ngi dégg bu da ngay xëy xëy mu mer nag ba sës te la ma Alioune Seye de waxoon rek moo ci ne nit ndab la ndab nag bu feesee day tuuru si yaa ngi dégg lu ma la kon defe na jéem leen a jegeñ pour xam ñoom li tax ñu garab defe naa moo doon doon li gën a wóor may sax mais pas question que ni rek dañ la bett dañ la bett parce que pour man ñoom jógu ñu nii rek pour saboter pour grève pour man am nañ ay raison yu tax ñu def ko kon nag laajante leen waxante leen yéen ñi leen yilif ak ñi leen di leen arbitrelu su ko defee ngeen xam lu ne si ñoom pour que ngeen mën a waxtaan régler angle yi mu ñu continuer Sénégal jëm kanam mais li ma d'accordul daal yilif naa nit ki rek dama koy xoqatal wala maa lay fay dama lay nangam non loolu dañu dépassé affaire u njaam yooyu day faal dafa romb bu yàgg ay 1800 nang tubaab yi dem nañu waaw Babacar su jógee suñu laam nañ dem fi nga xam ne moom mooy record si xalima Abou Nour foofu nag mi ngi dalal ki nga xam ne mooy euh, Goro Sock moom Goro Sock lu mu gis daal moom nee na dina ñëwaat parce que contre performance yi xam na la moo ko waral nee na fas yéene na ñëwaat su ñëwaatee day day rajaxe lamb bi lu simple bi. waaw lamb ci dee ngi fi comme day rajaxe góor ah yaa ngi ne da ngay rajaxe incha allah lamb yaa ngi fi li am solo nag mu ngi ci contre performance par rapport ak euh, euh, année yële passé mu ngi doon def lu doy doy waar ci lu simple bi mooy boo xoolee daaw li mu ci bëri bëriwul. ba ba pare amoon benn combat ak Tyson 2 yàlla def mu ñàkk combat ba ñu jógee ca ren mu ñëwaat ci lutte simple bi bi mu dikkaatee it sax kii parce que mu ngi participer mais boo xoolee pour mu gagner actuellement problème la loolu nag xam naa comme ni ma wax rek moo si nekk xëy na xam na lu koy perteloo mu ngi ciy liggéey comme ni ma ko wax ak ay naa loolu ci continuer ah comme ni mu ko waxee xëy na mën nañ ñëwaat mais làmb moom actuellement dama ni moom bëre ñuy def te duñ Euh, ki nga xam ne mooy bébé Saloum record mi ngi ñuy xamal ne ginnaaw bu mu bëree ak ki nga xam ne mooy Reug Reug ñetti at si ginnaaw mi ngi dem nag di bëre keneen koo xam moom nañ ko ràññee lool si lu simple bi muy euh, ki nga ne mooy Franc Babacar. waaw loolu am na de moom bëri na ak Reug Reug Reug Reug daan ko tey mu jëlaat Franc mu mel ni bébé moom daa mel ni mbirum simple ak mbirum dóor lay moom xam nga ci jànj ak jóor moom nañ ñëw mu bëri et tamit li may wax rek mbër la mu mu jara encourage mu jara félicité moom bébé Saloum parce que tamit vraiment euh, ku ne xam na ne carrière am ni mu waroon doxe doxewu ni dëgër na mais terewul pourtant mu ngi bëre ci niveau bu baax bi ndax rëg-rëg moo ma daan ci làmb du gàcce tey ngay walbati ku am franc si yaa ngi dégg lu ma lay wax te franc itam ku ne gis ne ci niveau bi mu ne kon defe naa bébé itam ak lu mën a xew rek dafa mel ni mu ngi ci benn niveau bu nga xam ne niveau bu xaw a baax la ñu bàyyi rek ci kàttanu yàlla ba dimanche ak jàmm ñu xool fu ñuy mujjee ñoom ñaar keneen ku bi nag xëy dalal muy Edouard Sarr Edouard Sarr soo leen ko déggee mooy doomu Ambroise moom nag mi ngi expliqué lan moo taxoon mu dem si table technique technique bi moom nag nee na table technique bi dañ ko woo CNG ko woo na ko ñëwal nga euh, dem si table technique bi moo tax mu moom tamit mu jëfee ndigal euh, mi ngi wax tamit mi ngi tontu ñi nga xam ne ñoom nooy nooy wax si ginnaawam nee na nag mi ngi wax ne lu nekk doomu Ambroise Sarr moo tax mu dem toogu ta toog si table technique bi mi ngi leen di xamal ne moom nee na am na diplôme arbitre si euh, centre Fila foofu la ko defee si Thiès te nee na tamit nee na moom tamit du làmb nekku rek arbitre am na beneen liggéey parce que nee na jàng na jàng boo xam ne si ay école yu mag fi nga xam ne moom nee na am na diplôme sax euh, banque finance moom la am comme comme diplôme mi ngi ñaaw tamit arbitre bon si ay kàddoom ba tey Edouard Sarr nee na keroog Jax mu tegee 10 millions yi arbitre yi ñoom ñëpp euh, jox na leen 700000 pour ñu partager ko si ñoom seen diggante si 5 arbitres yoon daal la xëy fësal nii euh, si journal record. man daal Ndeye lay waxaat rek encore fois arbitre yi moom Edouard Sarr keneen laa yi yemale man Babacar si lu may wax nii. échéant yi dégg arbitre yi ñoom la ñu tàmm gis ñuy arbitrer combat yi su problème amee te ñu ne problème bi ci ni ñu dégg daaw ba ñu ngi koy teg ci taabalu CNG bi nañu régler problème bi. yaa ngi dégg pour man loolu moo ëpp solo dem jël benn même même bu amee ay diplôme am loolu moom la mais ñun xam maanaam tabuñu ko pour arbitrage non non non parce que yooyu boo xoolee kër Mbour lu mel noonu lu fa indi problème parce que parce que jor nañ leen lañu fekk jël ku ne kaay arbitré ba ay coow am ci làmb ji est ce que mbir yi noonu la war a demee warul demee noonu pour man affaire yi dañ ko war a teg ci yoon yaa ngi dégg lu lay wax ku ne nga xam lan moo ci say responsabilité ñu régler ko ñoom kilifa yi nga xam ne ñoom leen tegal bu dee mënatuñu arbitre wala doyatuñu la ñuy wax mënuñu ci méngoo am nañ droit kat ne lii na ngay toogee ñu formé ji ñeneen ñu ñëw continuer arbitrage bi réew mi di non non def ay at nit ñi xam leen bu ñu amee problème ñi ñu ko mën a waxal mooy seen ay kilifa suñ ko waxee nag nañ leen déglu mais li metti Sénégal gii nit da la yilif rek li ma la waxoon sànq nekk dixième bàyyi la ci suuf du xam ci loo ne du ci xam ci lu nag te chaque jour mu ñëw des fois di la kereel ay problème yooyu nañ ko nañu nañu xam ne ñun ay doomu aadama lañ quoi cër bi ñu joxante ko donte maqaama yi du tolloo ndax loolu mbiru suñu borom la yaa ngi dégg suñu président Macky Sall yàllaa ko taba muy président ñu jox ko cëru président mooy moom itam na xam ne ay nit a ko fal ne ci suuf jiite ko mu di leen bàyyi xel ka nekk ca ministère ba noonu directeur de société ba noonu ka nekk Leewtoo noonu ka nekk feneen noonu ka nekk feneen noonu yaa ngi dégg loolu la war a ki yore këram sax di fa joxe dépense dafa war di saafoonteeg njabootam ndax defe naa loolu mooy tax cohésion am jàmm mën a am nga xam ci li ñu ne xam seen ay métit pour mën ko faj Babacar nag suñu demee nag suñu jógee record yi dem si Leewtoo TV foofu na xëy na fa dalal ki nga xam ne mooy Sokh Babacar waaw Sokh mu nga fa de day tontu gàmmu gi olof na tontu du forox ndax gàmmu génnul di mu lu mu ko wax Sokh nag nee na ko li leer ba leer man may relu fu Pikine te umu lu may mooy ci yow te itam ne na yaakaar ñoom ñaar dañu bëre bay laal fii lii ku a gis nag demal ci bi ah, ak Thiam danga gis combat bu doy waar ay combat sax Babacar nag si kàddu yooyu leen tàggoor leen jox di daje suba incha allah mais balaa boobu may nuyu suñu yaay mais soo ni sama doom Mouhamed Diouf nuyu ki nga xam ne mooy Astane euh, chéri Khadija Diallo DG Brahma nuyu nga xam ne mooy Khoudia Seck euh, chéri Asek depuis Italie yaa ngi si biir nuyu samay doom Mame Diarra Penda Rokhaya ak sama doomu bopp Grand Fallou nuyu Abdou Gueye euh, Baye jàmm Diamaguène Papa Cité yaa ngi si biir Ramos Ndiaye depuis Italie aussi yaa ngi si biir wala boog Aliou Ndiaye di félicité aussi waa PSG yi nga xam dem nañu finale Coupe de France di xaar nag Euh, deuxième demi-finale bi tey si ngoon Babacar. yàlla na yàlla def jàmm di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi suivre à travers le monde gis nga gars yi démb ah. ndeysaan moom tamit maa ngi koy bëggee Thierno Sissoko ñoom ñëpp ah ak Jimo Blaise waaw maa ngi koy bëggee bu baax a baax Ahmed Diop Cheikh Bass borom Petersen tuuti Yaay Sarr Khady Rose Ndiaye Asi Diagne ca Mauritanie Galas Niang ah ñoom ñëpp maa ngi leen di béggee Ali Sall Malick Sarr Moustapha Dem gaa yëpp du ma leen fàtte ah ak Dame Guèye waaw Sidi Guèye tamit ñoom ñëpp a ngi ci biir gaa yi daal di wax ne internet yi encore une fois amuñu seen fa yal na leen yàlla buur bi fay waaye tamit di jaalewaat waa Sénégal rek Cheikh Abdourahmane Fall Tilal di ko jaal jullit yëpp di ñaan yàlla mi nga xam ne nii mooy buur te am kàttan di borom kun fa yàkkoon yal ñu yal na ko yàlla yërëm xare ko aljana boole kook yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole kook si Ahmadou Bamba sëriñam te am nañ ci yàqin ndax itam ci lu baax la daan dox di ci wax guddeeg bëccëg ci yoon bu baax la nekkoon yàlla ñëw ak la war a am moo lay wan ne rek coronavirus ak n'est pas coronavirus ak lépp bés bu mal mbir mi jotee ak lu mën a xew dem dina am te déggoon naa sëñ Cheikh Tidiane di ko wax almaktum ne na nit ki maanaam yàlla na yàlla ko ay leeram boo waree faatu moom lii ñëw lu mu mën a day ñëw te bu ñëwee mu lay yóbbu kon nag li am solo daal mooy nañu jëlal suñu xel suñu borom rek gëm ko te wóolu ko loolu moo ci nekk daal Saliou Khoule Zik FM du ma ko fàtte di ko ak ku mel ni Mamour Kandji nitam di xaritam di léppam di wax Sénégal yal fi jàmm yàgg. ba suba incha làmb la de ñaari xale la. waaw ah, dañoo war a bëre ba tàkk bay laal fii liggéey yii <laughs> gàmmu kay lam daan def bu mu ko bàyyi